نيو بالاسلام موي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته غناو لو خام نين تي وير جانغ نلو اي خام خام يو بار بار باري تي سار ووي دي فاتحه جانغ نين عقيده اي باس باس يو وير نان لا يالا بيغ مو ملني jàng nañ ci xeeti tawxiid yi lu bari jàng nañ ci tawxiidu alzaati walsifaati wal asmaa jàng nañ ci tawxiidu rububiya jàng nañ ci tawxiidu uluhiya wala tawxiidu libaada te itam jàng nañ ci gëm gu nuy gëm bis penc wax nañu aslaf ci li sayduna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax ci bis penc donte le lañ ca faram bariwul ara gëm bis penc jàng leen ko suratul fatiha jàng ci itam ñaan ni ñuy ñaane ak kuy ñaan yàlla soxla si gën a rëy ci ay soxlaam seen na soxla si nga xam ne moom bu fajoo rek lépp baax na ci àdduna ak àllaaxira te bu fajuwul dara baaxul ak lu la nuuru nuur lu baax dara baaxul du ci àdduna bi ci àllaaxira seen soxla soo si fatiha jàngal nanu mooy seen soxla jàngal nanu itam ñu di ko ñaan ak ñu koy ñaan gannaaw loolu fatiha jàng nañ ci xibaar yi tënkub xibaar yi xeeti nit yi ñu jiitu woon fatiha wonnu ni la ko tàmbalee ci aadam ba suñu jamono ji nit ñi paase ñëpp nekk ci wirgo lañu wirgo wax wu ñuy tudde alladina an'ama allahu alayhim wirgo wi nga xam ne yàlla defal na leen xéewal <clears throat> te yàlla ci yàlla boole ak wirgo wu nga xam ne wi yàlla da leen a mere yàlla ci yàlla musal ak wirgo woo xam ne wi dañoo sànku te xam ngeen ne ki sànku yàlla mere ne ko te ki yàlla mere it sànku na yal nañu yàlla musal ci moroom yàlla musal na ci sànku loolu lépp jàng nañ ko ci fatiha fatiha am na nag lu ñu jàngal ci junj loola mooy lan sëriñ xaabi وعلمتنا الصورة بالإشارة أن الناس في جميع الأزمنة والأمكنة منقسمون في هذه الأقسام الثلاثة. Fatiha jàngal nañu ne nit ñi ñëpp ñëpp ñëpp. mboolem ñun ñi ci biir jàkka ji ak ñi ci dëkk bi ak ñi ci réew mi ak ñi ci adduna bi nit ñi paase ak ñi teew ak ñi juddoogul nit ñi ñëpp ñetti xeet yii lañu am na ñetti mbooloo yoo xam ne ci ñetti mbooloo yooyu kenn ku ne ci na ci benn ci ñetti mbooloo yooyu te suñ borom yàlla ci fatiha bu ñu dee woon ne nit ñi ñëpp ñetti mbooloo lañu mbooloo mi yàlla defal xéewal ak mbooloo mi yàlla mere ak mbooloo mi sànku bi ñu yàlla di won loolu dafa am luñ ci jublu wonuñu ko rek pour ñu xam ko yem ci waaye dafa bëgg suñu borom yàlla daf ñuy jàngal ci saar wi pour kenn ku nekk ci nun individu par individu fard par fard kenn ku nekk ci nun seet boppam lañ bat boppam bu baax te bañ a nax boppam seet ba xam ci ñetti mboolo yooyu ban la ci bokk Sallaw Abdou Aziz Touré day ñàkkul ne bokk na ci benn ci ñetti mboolo yooyu yow mi may dégg itam koo mën a doon kenn ci ñetti mboolo yooyu nga suñu borom yàlla nag bëgg kenn ku nekk ci nun seet te seet mu bañ a nax boppam seet ba xam ñetti mbooloo yooyu kan la ci ci ci ban la ci bokk mhm. ida wajada nafsahu ala siratin mun'amin alayhim shakara allah ala su fekkee ne bii daa seet boppam fekk mi ngi ci yoonu ñi yàlla defal xéewal ñi yàlla defal xéewal daa am aw yoon wu ñu tege loolu suratul fatiha jàngal nanu ko leeral na yoon woow wi boo seetee sa bopp fekk yoonu wi nga ne mooy yoonu ñi yàlla defal xéewal nga sant yàlla waaye nag bu tayam am na lu des loola mooy lan bu fekkee ne bii seet nga sa bopp nga gis ne yow yàlla dalaa boole ci mbooloo mi mu defal xéewal kon amal nga ko ak cant nga sant ko ca loola waaye am na lu des mooy bu fekkee yàlla dalaa teg ci yoon wi nga xam ne mooy siraat al mustaqim mooy siraat alladina anamta alayhi mooy yoonu ñi mu defal xéewal yàlla bu la tegee ci yoonu ñi mu defal xéewal nga xool ba xam ne yaa ngi ci woowu yoon des na nag nga dox ci nit ki mën naa taxaw ci bopp yoon wi te dox kon xoolal ba xam ndax yow yaa ngi dox dox bu baax walla déet su fekkee gis nga ne yaa ngi dox dox bu baax ci yoon waaw yoonu ñu yàlla defal xéewal yaa nga ca te yaa ngay dox dox bu baax kon nag ba tey amel nga yàlla gënenu cantu ñaareel ba noppi nag nga ñaan ko mu saxal la ci dox bu baax googu nga dox bu baax ah. ويلتفت يمنة ويسرة في سير متردد بطيء غير جاد علم أنه غير ثابت فيكف نفسه ويأخذ الأسباب لتغيير الحال su fekkee da ngaa seet sa bopp fekk na yow yaa ngi bokk ci mbooloo moom mi yàlla defal xéewal yaa ngi bokk ci mbooloo mi nga xam ne yàlla won na leen yoonu ña mu defal xéewal ba yaa nga ca yoon wa waaye nag wax dëgg daal doxoo wala dox bi daal ñàkk na solo dox bi daal da ngay def bu bee nga dox bu bee nga taxaw bu bee nga geestu bu bee nga deng-deng dox bu ñàkk solo bu foo yooyu boo seetee te fekk loolu mooy li am bul nax sa bopp bul nax sa bopp jéema la sabuwaat sab bu bees te góor góorlu boole sabablu noo soññee sa dox ba dox dox bu baax booleeg bi ñaan yàlla moo mu tawfiqal mu جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها سبل مضلة تاب عن ذلك وآب إلى ربه وعاد إلى الصراط المستقيم am na beneen suura bu mën a am xam nga wax naa ñaari suura yow moo xam ne bi nga seetee sa bopp gis nga ne yaa ngi ci yoon wi te yaa ngi dox dox bu baax su boobaa santal yàlla te ñaanal yàlla yàlla toofiqal la ba nga sax ci dox bu baax bi te it muslul seytaane bala mu laa gàllankoor te itam bul xam fooy mujj bul xam fooy mujj loolu mooy xaal bu njëkk bi bul xam fooy mujj mooy tax nga góorgóorlu jéem a sax ci dox bi boole di ko ñaan yàlla loolu mooy melokaanu njëkk bi melokaanu ñaareel mooy yow de yaa ngi ci yoon wi yaa ngi doxit yoon wi yàlla bëgg yoon wi yàlla rëdd yoon wi yàlla defal ñi eh, eh, eh, mu xéewal yaa nga ca waaye nag dox bi daal dafa fooyooy bu bee nga dox bu bee nga taxaw bu bee nga geesu nday joor càmmoñ bu bee mu ngoog dox bu ñàkk solo su loolu la kon tam ba tey bul nax sa bopp ñaari bi sabab lu noo soppee dox bi te lu boole ñaan yàlla mu may la tawfiq nga dox ci kaw yoon wi ñaari xaala ngoog daa am bu leen ñetteel ñetteel ba mooy nga seet sa bopp fekk ndekete yow da ngaa jadd da ngaa jadd sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo nu andil ab xadis boo xam ne dañ ci xamee ne ndekete nit ki dina nekk ci yoonu lislaam ba mu yàgg mu jadd xadis ba nettali naa ko fi ay yooni yoon mooy xadisu kere ba mu rëddee rëdduwu dijj wa fab ab bant nag rëdd ay rëdd yu sew yu tàmbalee ci rëdduwu dijj wi tey jadd mun ne rëdd wu di ji wii mooy siraatal mustaqim mooy yoonu yàlla wi mu jub lu mu rëddal boppam laasa ko ci boppam rëdd yu saw yii nag ay ñall la yoo xam ne ñall wu ci ne seytaane ne ca bopp ba di woowaate te ku ko wuyu mu yóbbu la naari jahannam kon kon du ñàkk ci nun ñoo xam ne loolee yonent bi waxoon da leen a dal sallallahu alayhi wa sallam yàlla bu nu ca bokk yàlla bu nu jàdd yàlla bu nu jàdd bu fekkee da xool nag fekk ay li yëwan da ngaa jàdd kon li la war mooy nga daal di tuub jàdd bi nga jàdd jaar ci ñall yooyu nga bàyyi fa ñale te dellu si ci ndóoti mi dellu si ci siraatal mustaqim ndax ñalla wa kat sayidna muhammad teeloon na la ko wax sallallahu alayhi wa sallam te it kat loo ko yaakaar yaakaar jëmewu la fudul naari jahannam yal nañ ci yàlla musal kon li war mooy nga daal di tuub daa di dellu ci yàlla daa di dellu si ci ci ci ci ndóoti bi dellu si ci siraatul mustaqim te góor góorlu nag ndax yow raw nañ la nga góor góorlu soññ sa dox ndax nga dabe ñi la jiitu woon والمقياس في كل هذا والميزان الذي يعرف فيه الاستقامة والاعتدال والحق والباطل والغث والسمين والهداية والضلال وما جاء bëgg a laaj wala man soo ma laajul man ma laaj la waaw yow boo bëggee natt ba xam yaa ngi ci yoon wi walla nekkoo ci jadd nga am jaddoo su fekkee jaddoo ni ngay doxe dox bu baax la yaa ngi waaxu wala ni ngay doxe daal léeg-léeg nga dox léeg-léeg nga taxaw léeg-léeg nga geesu léeg-léeg ñetti xeet yooyu yow boo ci doon soo bëgg soo ma laajee ba xam ci ban nattukaay nga koy natte ma ni la nattukaay bi benn la balance bi benn la peesewukaay bi benn la peesewukaay bi nga xam ne ci ngay xamee dëgg ak caaxaan peesewukaay bi nga xam ne ci ngay xamee lu am valeur ak lu ko ñàkk peesewukaay bi nga xam ne ci ngay xamee lu jub ak lu dëng loolu mooy waxi sa borom yàlla directement li yàlla waxal boppam muy alquran ولا muy اي احاديث يستخير جيجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لولو alayhi نتوكاي بي loolu mooy نتوكاي ها amul وإن نظر ووجد نفسه في صراط المغضوب عليهم أو الضالين سارع إلى تصحيح الوضع وتغيير المسار والإيمان بما أنزل على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أمنا بنان حال بمنا أم بنيان بويس حال يب te mooy yow nga seet sa bopp fekk nekkati woo yaa ngi ci yoonu ñu yàlla mere wala yaa ngi ci yoonu ñu sànku ñi te loolu mën a am la nattal ci sa bopp rek li ngay def ak ni nga koy defee natt ko ci loolu yi ma la wax nattal ci li yàlla waxal boppam ci alquran yàlla moom daa waxal boppam tey daa jox sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu ñuy wax sunna muy nuru wata yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te naam ay waxama waaye wax yàlla ji mu wàcce ci moom la ngir mu leeral ci alquran hmm, bu fekkee ne bi nag yow ndekete yoon woowa da dangaa natt fekk ndekete yoon yooyu yëpp ne ko ci wen yow daal yaa ngi ci sra yaa ngi ci yoonu ñu ñu mere wala yaa ngi ci yoonu nu sànku kon nag li gën te ak moo gën a sakkan moo nga daal di dellu si daal di gëm yàlla te gëm sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te gëm li ñu wàcce ci moom تجافي تبني ci يلا يلا a أيها الإخوة المسلمون قد تبين لنا من خلال دروسنا في تفسير هذه السورة أنها نزلت لتعليم العقيدة الصحيحة وإرشاد الناس وإراءتهم الصراط المستقيم الذي يجب أن يسيروا عليه mbokk julli لي kon lii lépp nu wax dañ ciy gis ndekete fatiha ndekete alquran li ko tax a wàcc mooy defar pas-pasi nit ñi ba ñu xam lu ñu war a gëm ak lu ñu war a gëm ba noppi nag won leen yoon wi nga xam ne ci lañu war a jaar bu leen ko wanee ba ñu gis ko mu jàpp seen loxo teete leen ba ñu jaar ca loolu moo tax alquran wàcc ak itam xamal leen yoon woowu nga xam ne ci la war a jaar ñi jaar te ñuy mujj te mooy aljanna yal nañu yàlla boole ci ñooñu ñi ko jàpp itam fa ñuy mujj mu xamal leen ko te mooy naari jahannam yal nañu yàlla musal ci naari jahannam kon boog alquran bi muy wàcc fatiha bi muy wàcc looloo ko taxoon a wàcc fatiha li ko tax a wàcc mooy defar suñuy pas-pas ba noppi won nu yoon wi yàlla gërëm ne yoon wii man moom laa bëgg ngeen jaar ci bu leen fi sàkk weneen yoon yoon wii laa bëgg ngeen jaar ci wonnoyoɗo bona ko nekk peeci suñu loxo teetanu ci ñu mën caa jaar ba noppi xamal nu ñi ci jaar fa ñuy mujj yowmal qiyaam xamal nu it ñi ci jaarul fu ñuy mujj yowmal qiyaam loolu lépp moo tax fatiha wàcc moo tax alquran wàcc ah ومع كل هذا فإن للسورة جانبا آخر هو جانب البركة وأنا كلمة وخلفت تيول تيول فاتحة تيول القرآن أمنا بنن جانب أمنا جنن ويت قمو منه boo xam ne taxu koo jóg waaye mën na ko war wet mooy gan mooy wetu barke fatiha dafa am barke alquran lépp lu ci bokk dafa am barke إن البركة ثابتة لهذه السورة العظيمة فهي سورة يشفي الله بها الأمراض والأسقام وقد ثبت في حياة الصحابة رضوان بركة بمودي بركة بمودي فاتحة وخي الله yàlla ay waxam mooy yàllay wax yi faw mu am barke faw mu am lu ko wuutale yeneen wax yi bokk na ci li ko wuutale wax yi nag am gum am barke ba nga xam ne borom yàlla dana ci faj ay jàngoro faj ay jàngoro naam taxul fatiha wàcc taxul alquran a wàcc waaye nag mën na ko bu baax a baax a baax ci dundu saxaaba yi ridwanullahi alayhim loolu sax ci bu baax am na ci saxaaba yi ñoo xam ne daanañu faj ci fatiha am na ci saxaaba yi mbooloo mu àndoon di tukki dem ba ci ak gàdd gàddi arab yi euh, guddi jot ñu fanaan léegi nag boroom dëkk bi am na lu ko euh, mat benn muy jaan wala muy jiit waaye daal mat na ko te métti na te jaaxle na mu waaye ku bokk ci mbooloo moo mee ci saxaaba ya moo dem lugg ko ba mu wàcc ko fatiha la ko lugge am na itam ku bokk ci saxaaba yi ku nu xamal ne bàyyi taxam dafa mos a am ak mbooloo mu bokk ci ah, saxaaba yi di tukki ba ñu demee ba ci biir tukki bi ñu jaar ci dëkk waa dëkk ba ba ñu fa wàccee waa dëkk ba da leen ñu dañoo dégg ne am ngeen waa ju baax ju indi ay xéewal nu bëggoon a xam ndax yéen man ngeen dara wala xam ngeen dara ci faj ku dof ndax ñun dañoo am sunu mbokk moo xam ne dafa dof ba dañ koo jéng ci ay jéng la ne ñu bëgg nag bu fekkee mën ngeen koo faj ah ci saxaaba yi ku indi leen ñu indi mu faj ko ci faatiha loolu lépp sax na ci eh, sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم بخاري يتلنا ab xadis nee na abu saidin alxidri nee na dañoo àndoon ñoom saxaaba yi doon mbooloo dem nekk ci ab tukki bu leen yonent bi yónni sallallahu alayhi wa sallam nee na ñu wàcc ci ab dëkk bañ ca wàccee ba guddi nee na ab xale bu jigéen ñëw am lu mu leen wax lu mu leen wax da leen ni borom dëkk bi dafa am lu ko mat ñu buggoon a xam ndax am na ci yéen ku mën a mocc Abu Saad booy nettali alxidri ah. na jënn waa jóg ne ko mocc ko te nee na waa jooju xamunu ci woon xamunu woon ci moom mukk muy mocc nee na mu dem mocc ko ba mu wàcc mu ngoog ba mu wàccee nag aha fa amara lahu bi talatina shaatan wa saqaana laban ba mu wàccee nee na mu jox leen fanweeri gàtt fanweer may leen soow ñu naan noonu la ko Buxaari nettalee lafzu muslim am na tuuti wuute rek waaye maanaam bi mel ni jox na leen ay gàtt fanweeri gàtt may leen soow ñu naan aha falamma rajaa qulna lahu akunta tuhsinu ruqya bi waa ji delloo nag ca saxaaba ya mu àndaloon ñu ne ko waaw yow da nga daan mocc da ngaa mën a mocc mu ne leen man de musuma mocc munumaa mocc it dama demee daal fatiha laa ko mocc dama doon tari fatiha daal ba dangar di wàcc ñu ne ko kon nag lii mu la jox ci ay gàtt buñ ci def lu nu xamul yonent bi dana ci am dem déet sallallahu alayhi wa nan téye gàtt ba dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fanweeri gàtt ba ñu téye gàttee dem ca la leen yonent bi yónni woon sallallahu alayhi wa sallam ba dëpp ba dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nettali ko mbir mi ne ko gàtt yaa ngi nii nag xamuñu li ñu def war nañ koo def xamuñu waruñu koo def def nañ ko daal yonent bi lu mu wax. wa ma kaana yudriihi annahaa rusiyat iqsimu bi sax da ko ne waaw yow ana ko la xamal ne fatiha ah ak mocc la loolu la ko laaj da ko ne ku la xamal ne fatiha ak la daan leen ne séddoo leen gàtt yi te man sax na ngeen ma séddaale man sax na ngeen ma séddaale te dana bëgg woon ne lekk gi dagan na sañ ngeen ko waaye xam ngeen ne mos eh, eh, eh, soxlawu ko waaye da leen ne séddoo leen te sédd ba أما الحديث الثاني فقد خرجه أبو داود في سننه عن خارجة بن عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه من حديث بجدة أبو داود موقف صلاة جلبت خارجة خارجة ابن الصلت التميمي نانا باي تخم مو أم لم كو نتلي لم كو أقبلنا من فقالوا إنا أنبئنا أنكم جئتم من عند هذا الرجل بخير فهل عندكم من دواء أو رقية nee na xaarija nee na bàyyi taxam moo ko dee danoo àndoo nag mbooloo mu bokk ci saxaaba yi jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd di tukki ba àgg ci dëkk bañ demee ci dëkk ba waa dëkk ba am luñ ñu laaj dañu ne ñu ñun day dégg nañu ne seen waajoojee di Muhammad am na ay xéewal ak yiw bu mu àndal te nun day dañ fay am mbokk mu dof ndax am na ci koo xam ne kii man naa faj qaala fa qulna mhm. bi maadudin fi nee na ñu ne ko waaw waaw man nan koo faj man nanoo faj kay nee na ñu andil ko waajoo xam na jii dafa dof mi ngi ñu jëng dañ ko jëng الرحمن هذا الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمتها أجمع غداتي ثم أسكت فكأنما نشط من عقاب نعم ما فجكو نعم نعم بس بنت السبا أنغون لما يجي عند فاتحة بم أغ ما دجل اسم لر تسلكو دفكو سبا دفكو أنغون نتفن نتفن كيف نعم واجي wér njuraak mel ne dara si koo dal mhm. qaala fa a'tawni ju'la nee na nag ñu jox ma dara ñu jox ma alal nee na bi ñu joxee alal nag ma ne ah alal ji kat xaw ma sañ naa koy naa bàyyi ba dellu ci sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam te loolu ñun ñëpp war nañ koo jàng loolu ñun ñëpp war nañ koo jàng mooy bu dara beesee ci sa dund yoo xam ne goo xam atte ba nga bàyyi ba dellu ci sayyidina Muhammad عليه الصلاه والسلام وانا برب يخضر وحنا كده نانا دو دالن سي مكلف بو جيف ين جيف تي ديكو تخم با خم لو يالا اتي كون نك يو نغا خم ني اك جليت نغا سو ندير نيوي ندير مو لو مانا دون جن بو فكي خمولو سي سيدنا محمد واخ صلى الله عليه وسلم دفلنا صحابه يي فيكم مو dañ ko jox dara mu ne naa bàyyi ba dellu ci sayidna muhammad sal allahu alayhi wa sallam nee na ma ma ma téye ko ba dellu ba mu delloo nag aha فقلت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كل فلعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق nee na ba ma demee man nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dof bañ ma yëpp saxaaba bee ko ko nettali ak ni ma ko fajee ci ñetti fan te fatiha dong laa ko faje fatiha kenn du ko dong astaghfirullah nee su ma xëyee jàng fatiha tëfli ko su ngoonee ma jàng fatiha tëfli ko ñetti fan laa ko def mu wér ñu jox ma lii xaw ma nag lii sañ naa koo lekkam déet rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam da ko ne lekkal da ko ne lekkal giñ naane bu fekkee am na ku lekk alal ci ay mocc mocc tappaleeg caaxaan yow lekkoo alal ci lu dul moccu dëgg lekkal mu ngoog mhm. خرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا بنين الحديث بوخدنا الإمام مسلم موقع نتلي عبد الله بن عباس اسمه ملك جلي كون بوك عبد الله بن عباس موقع نتلي رضي الله عنه عبد الله بن عباس نينا بني بس دانو توق جبريل نيو توق تي ويت يونس صلى الله عليه وسلم ba mu yàgg jibril dégg lu ne kii ci kaw asamaan dana jibril téen bi jibril téenee daa dina yaa rasulallah ubbi nañu ab bunt ci asamaan boo xam ne kenn mësu koo ubbi lu jiitu tey tey itam am malaakaa ngi wàcc moo xam ne musta wàcc ci kaw suuf lu jiitu tey Abdullah ibn Abbas nee na malaaka ma ne cëpp daa di am lu mu wax yonente bi sallallahu alayhi wa لم وحي لون تبي فسلم وقال أبشر بذنوبين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك ملاك مي دفو نيو بنات دادنا يا رسول الله kontaanal maa ngi lay dëgal ci ñaari leer yu la yàlla jox yoo xam ne mëseesu koo jox ab yonent ci li la fi jiitu woon ak leer ñaari leer yoo xam ne mëseesu koo jox ab yonent ci li la fi jiitu woon mooy fatiha ak aaya yi mujj ci suutul baqara mooy amana rasulu ba saar wa jeex mu ne ko ñaari leera ngoog yoo xam ne mësee su koo jox ab yonent ci di la jiitu aha mu ne ko doo ci jàng mukk ci ci xaras ci dara ndare du sant borom yàlla nangul na la say ñaan fatiha am na ñaan amana rasulu am na ñaan ndax li muy tekki mooy ñaan yooyu boo ko cee boo koy jàng yàlla dale ko may wala soxla soo ko ñaan yàlla may la ko li ci nekk borom xam-xam yi wax nañ ko waaye malaaka moom da ko ne doo ko ci jàng ci xaraf mukk te yàlla mayu la ko وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ثلاث سور من القرآن الكريم تكفينا كل شيء mbokk lii lépp bokk na ci barkay Fatiha lii lépp bokk na ci barkay alquraanul karim te wax naa ne fatiha yii may wax taxu koo jóg dama koy wax di ko waxaat taxu koo jóg mu ngoog teewul yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngal nanu yeneen ñetti saar yoo xam ne nee na mën naa fekk lépp mën naa fekk lépp aha في الحديث الذي خرجه الترمذي في سننه عن معاذ بن عبد الله بن قبيب عن أبيه قال خرجنا في ليلة مصيرة وظلمة شديدة حديث بابو الترمذي موقع صلاة jële ko ci ci ci kan la ko jële ci Muaaz ibnu Abdullah ibnu Xubayb Muaaz nee na baayam moo ko ne dafa am genn benn bis ñu génn ci guddi goo xam ne dafa lëndëm boole koog di taw ñu doon seet yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëgg مجيت نجلي اها قال فادركته فقال قل نانا ما دام جيس يونس بي صلى الله عليه وسلم فور اندك موم نين نغي اند موني ما قل قل موي وخال قل موي وخال يونس بي نانا مو يونس بي نكو قل نانا واخوما دارا مونيتيكو قل nana waxu ma dara mu ne ko qul yonu ñettel mu ne ko lu may wax lu ko de lu may wax lu ko sa nga bi wax qala qul huwa allah وتسبح ثلاث قل هو الله احد يونتو بكو وقت صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد اقول اعوذ برب الفلق اقبصار وجه اقول اعوذ برب الناس بصار وجه نيت يون تي سوبا اك نيت يون تي غون من لا فغل لب لب لب دنجن سيدنا الرسول خنجن دو وخنتو صلى الله عليه وسلم مو وخ صحابام بو ماغ بوبي نكو خمال نقول نيتي والله اك نيتي قول برب الفلق بصار يغ نيتي قول برب الناس بصار يغ الصبح اك غون nga saxal ko yalla وخرج أبو داود في سننه عن عقبة بن عامر قال بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء عقبة ابن نافع في حديث أبو داود Okba dafa wax ne benn bis moom tam ci saxaaba yi la bokk nee na benn bis dama ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuy doxantu ñekk diggante juux fa ak abwa am lu xew la xew mooy lan nee na nuy dox ba mu yàgg bu ngelaw jékki-jékki rij ngelaw lu ànd ak lëndëm bu ba ñuul kukk ba loola amee nag فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس نانا بيغا لولو جوغي ak ndag lëndëm gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàmbali di tari di muslu ci qul audu bi rabbil falaqi ba saar wa jeex ak qul audu bi rabbin naasi ba saar wa jeex moom la doon tari. wa yaqulu ya uqba taawaz bihima mu ne ko uqba يونتي الله محمد موكا وصحابه يبو اندل موي عقبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابه مونتي عقبه ديل مسلو نياري سار يوي فلق اك ناسي اها فما تعوذ متعوذ بمثل مونكو كن مسلو ووت لو ملني فلق اك ناسي كن مسلو ووت لو ملني فلق اك ناسي اها قال وسمعته يقولنا بهما في الصلاه عقبه نينا ما دغكو moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu jiitanu di tari qul audu bi rabbil falaq ak qul audu bi rabbin naas te julli moom la jullee mbokk jullit yi mu ngi noonu kon boog barkeb fatiha nga noonu barkeb alquran nga noonu ci at yi passé yàggul lool dafa am waa ju ñëw euh, jigéen ñëw ci man xale bu jigéen la tawat na daal na sama na ma sama lox bi daal dafa yàgg lool dafa metti naa bëgg nga ñaanal ma ci ma ñaanal ko ci na ko waaye foo xëyee na nga ci jàng ñetti falax ak ñetti naasi fu ngoon jotee it na nga ko def ay fan la ko def da mbokk jullit yi ñëw ci man ne loxo bi wér na ñu teg ci ab diir ay weer keneen ñëw ci man ñoom ñaar ñëpp man damaa tudd seen ci dëkk bi la ñu dëkk da waa xam ne aajowu ko tawat ma loxoom bu metti bu ko jaaxal ma jaar moom fa ma jaar ak ñaanal ko ca ne ko dee tari ñetti yoon qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas suba ak ngoon ay fan la ko def ñëw na ma loxo bi yor na ma di ko tooñ ne ko man kat damaa war a tàmbali di weexlu léegi damaa war a tàmbali di weexlu aha أيها المسلمون إن القرآن الكريم كتاب هداية يعلم الإنسان العقيدة الصحيحة ويصله ويربطه بخالقه. mbokk jullit yi, القرآن الكريم téere la boo xam ne li ko tax a jóg mooy gindi doomu aadama ak won ko yoon wi won ko pas-pas yi yàlla bëgg ak jullit fas te itam day takke nit ki ak yàlla alquran boo ko day jàng da lay takke ak yàlla loo ko gën a jàng gën a jege yàlla te itam day tax nga jege ko te itam da won yoon wi nga xam ne boo ci jaaree mooy wi yàlla gërëm te mooy tax nga am jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira loolu moo tax alquran a wàcc ومع ذلك فإنه كلام الله فيه بركة يشفي بها الله الأمراض ويقي بها كل ما يخاف waaye ànd ak loolu teewul wax yàlla doon gum doon wax yàlla tax na ba dafa am barke bu ci nekk boo xam ne yàlla mën na cee faj ay feebar yàlla mën na cee dindi ay jeexle mën na cee faj feebar te itam saxaaba yi ak gaañu baax ñi def nañ ko ba tey حاجة من الذهاب إلى الساحر أو العراب متخ بي فأمي لك جاخل كيرا من باكي نجبوة مبلا أي قنام آجول ميدم جابر جبر أن جبر يالا دكو تري آجول ميدم كيب خمكت سلاو جرول دم كي نسرا ومولي نخد لك سب خالص خمكا نغي دف نغي تنكو تشيلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دان فجو ديكي فج دانال كو صحابي ni di ci faju te mooy fatiha mooy fal qul wallahu falaq ak naas yi mooy saari alquran yi aha bu ko defee nu doy loo loolu nu doy loo li yonent bi daan faje di ko jàngal saxaaba yi di ci faju di ko jàngal saxaaba yi mu ngoog te itam nu xam ne kiy joxe ak wér la mooy yàlla te itam kiy faj lu ragal du sëriñ bi du téere bi du saar bi ngay jàng du téere bi ngay takk kenn la mooy yàlla yàlla moom mooy faj yàlla itam moo la mën a fegal li ragal bu dee dañ laa def dara ki ko mën a dindi mooy yàlla ci ndigalam la amee tey itam boo boo boo jëmee ci moom moom mën na koo dindi dara ump ko lu xew mooma te lu am mën na koo dindi aha bu ko defee ko bokk nga dellu ci yàlla moom yi bu dee feebar boo xam ne bii da nga ko war a boole ko dem ca docteur nga boole koog dem ca docteur te xam ne dem ci docteur itam sunna la ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku bari woon ay ñaan la ak léemaay waaye dafa amoon docteur te moom ci boppam docteur la woon am na lu ñuy wax ab tibbu nabawi mooy médecine prophétique mooy garab yi nga xam ne ci bi sallallahu alayhi wa sallam da ci daa faj ay jàngoro lu demee alhabatu sawda mu ngoog ak yeneen xeeti garab yu bare bare yoo xam ne lim ko xaju fi ku ko bëgg da ngay seeti ci sa xaw wala wala mu wax wala ñu mel ni moom tey faj ñoom jàng nañu fànnuk faj ci garab yi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala nga dem ci docteur yi yu bees yi docteur tubaab yi waaye nag boole ko ak ñaan yàlla te dellu ci yàlla te xamal ne yàlla moom mooy ashaafi te ku mu faj nga wér te itam mooy alkaafi ku mu fegal dara kenn mënta tax ba loolu dal la الله عليه وسلم إن ginnaaw yàlla moom gëm nga ne mooy kiy faj te gëm ne ndawam li mu yóbbi bu lii day faj wala mu ne lii day fekk xam ne loolee day faj te day fekk bu ko waxee rek daa am aha ndawam li mu yónni sallallahu alayhi wa sallam bu ne kenn musloowul lu mel ne saar sàngam ak saar sàngam ginnaaw nee na kenn munta am muslaay bu féete kaw qul huwallaahu falaqi naa si ñetti yoon subaak ngoon ne la wóor ne rek boo ko gëmee boo ko gëmul lépp loolu yonent bi wax moo am ndax moom mooy assaadiqul masduq lu mu wax dëgg la ginnaaw yàlla moom mooy fege te mooy faje te moom mooy ndawal yàlla bu ne lii mooy lii la yàlla di fege ku def li yàlla feg la ku def li yàlla faj la xamal na loolee mooy dëgg nga xam ne gisu ki sàkk amu ci aha wa mata qara'ta shay'an jëfandikoo fatiha jëfandikoo qul wallahu ci mbir di ca faju mbaa nga ne ci yow la waaye du ci fatiha du ci falaq ak naas ci yow la benn da koo gëmut te boo ko gëmul du yàlla du la ci faj mu ngoog dam ko gëmul wala li nga ko gëm doyul mu ngoog wala wala defoo ko na ko yonent bi daan defe sallallahu alayhi wa sallam loolu tam mën naa tax ba doo am résultat bi am garab boo jàddee posologie ba la nga xam ne mooy résultat ba doo ko doo ci mën a jot loolu mën naa nekk wala yeneen sabab am na asbab yu bëree bëri jaamukatu yàlla boo xam ne bi gimi gi dafay jàng alquran lu bari te itam day moytoo fen te day moytoo jëw te fu mu toll ma ngay jaamu yàlla ci làmmiñam ak ci ay cëram kooku xam ngeen ne fatihaam ñu rawul ak fatiha sàmba booy bu mel ne ab dayu sore boo xam ne fu mu toll ma ngay def ay bàkkaar ñaar fatiha yooyee tolluñu tolluwuñu diisaay te tolluwuñu tasir te fañ leen tëfli fataallam wa tamassak bima jaa bihi rasulullah muhammad kon donc yow julit bi may déglu na nga jàng li sayyidina muhammad indi sallallahu alayhi wa sallama ci aw faju win ak aw fegu win te itam nga téye ci bu dëgër te bañ koo booleeg leneen te gëm ko bu wóor a wóor boo ko defee loolu na la doy boo ko doy loo yàlla fegal la ci lépp fajal la ci lépp ci mu ne mag mbaaxam yàlla na yàlla xiir ci boppam loolu lépp itam du nu xam ne faatiha faj taxu koo jóg fekk taxu koo jóg mocc taxu koo jóg xam-xam bu bari du ci nekk muy gindi nit moo ko tax a jóg jàng nañ ko ba mu jeex lii nag da cee bokk ñu di ko wax rek ngir bañ ñu jóge fi di wuti feneen yoo xam ne mi ngi ci sunu loxo da wuti ku faj te yaa ngi mokkal fatiha yooyu faj mi ngeeg yow boo ko gëmee te xam na ko war a defe kon boog dem ci jabar am fa bakkaar te la ngay faj du faju ah kon kay li nga yor faju si waaye nag bu mu bu mu tee nga xam ne faj taxu koo jóg li ko tax a jóg moom wax nañ ko ay yoone yoone yoon yal na nu yàlla jindi yal na nu yàlla jéggal yal na nu yàlla teeteel boppam ci yoon wu jub wa wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu